demam nga umpuna mindéef te um na boppub kuy mindéef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñamu ko wax yonen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su lu wér demiinu yonen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way dee ya تنكبر woon fa bar وصل للحق من الحق المبين لي خادم بان وما ليس يبين وصل للحق من الحق المبين لي خادم بان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلق لم اتي جالب النيران أو جالب العارين في الخسران لم ينحني درو نار الدنيا واقتسني الباخي بخير سنيا ملكني ما لم يبه عني وخاد لي بقاو بالمن كرامتي لكن لي زار ñëwoon fi ci turu suñu Ahmadou ci bisam màggal gi muy def dañu yàlla def màggal ren mu mu day ak centenaire bi téeméer at bi sëñ bi ñëwee Touba waaw léegi mu ne du du ci màggal gi rek te dafa bëgg defee ko neneen loo xam ne murid yëpp koy bokk mu ne wax na ba la ko def nag day comme que bis bisu sëriñ Touba la day dem ci mbokkam yëpp ñu am ñoo fi toggal doomi sëñ Tuubaa yi ku xam ne sëñ Fall ni mu toll sëñ Tuubaa ak ni tollu ci Tuubaa loolu moo taxoon li ñu door a commencé rek ci ñu waroon a njëkk a seet si bopp an dafa fekkoon booba nekkoo ci ci dëkk waaw bi ñu ko waxee itam mu njëkk na wax ne nañ commencé sëñ Muntaxa ñu demee ci sëñ Muntaxa rek ak moom ni mel ci sëñ bi rek wax ne nañ ko def noo xam ni sëñ bi ñëpp dañ ko dégg bis bi nañ nañ ko yëngal daal ba ñëpp déggu ak fu mën a doon ci Sénégal ak ci bitim rek loolu moo tax ñu jël si njaboot gépp nag def leen boole leen def benn comité d'organisation def ko ay commission yu bari pour que kenn ku ne fa nga mën a taxaw ba bis bi ni ko sëñ bi bëggee nga ñu defe ko noonu sëñ mu taxaa nag ba léegi nii sa heure bu ne day day wootee laaj fan lañ toll gi mënoon yëkkati na cent millions tam teg ci loxo loxo comité bi e, jox ko sëñ Cheikh Bass mu jox ko sëñ Amadou Matar mu jox na ko kon presque foofu lañ lañ lañ bëggoon lépp daal daal daal di mat e, bopp lépp loolu boobu nag ñu ngi ci ñu ngi def ay ay ay ay ay ay daje ku ñu war a dajal ak mm, télévision yëpp lañ mobiliser ak rajo yeeg yëpp daal andi di ko sëñ bi bëgg daal bëgg nañ mu tasaaroo lool yen ñi nag yéen a moom bés ndax. sëñ Tuubaa lañ ko defar te sëñ Tuubaa mooy njabootam yéen a fi toogal njabootam kon ñu bëggoon Mbàkke ñëw fii sakku sakku ñaan ak ak ndigal ci taalibe yi ñu ci mën a taxawee rek ci ci ci bis bi ku mën a ñëw Tuubaa nga ñëw Tuubaa yi ñu def ci xew yëpp nag ndax dañuy def Louga dañu fay def ay ay manifestation ak i ak i conférence pour gën a wane sëñ bi dañ ko def njaareem tam di ko def Touba waaye bu Dakar bi nag moo gën a rëy waaw donc Dakar bi moom dañ autorité yëpp ak ambassadeurs yeeg ak confrérie tarex yëpp yëpp dañoo bëgg ñu ñu ñëw ci waaw ñu ci bis boobu ñu wut ay experts yoo xam ni ci seen seen xam-xam màcc na ci eh, yi leen jox pour ñu waxtaane ko ci Sëriñ Touba loolu daal mooy li nga xam ne moom li ñu doon ko gaaral ndax kenn mënta def lenn ci Sëriñ Touba yéen jabaru Sëriñ Touba gi yëgu leen ko ba ngeen ñaanal na ci jox na seen ndigal ñaanal na ci waaw loolu daal mooy mooy sabab bi ñëwoon ñëwoon fii. ci bi sëñ bi ñëwee Touba ba suñ joni tey ñi nga xam ne ñoo ko fi wuutu ñëpp liñ fi def ci yoonu murit ni fi yoonu murit bi yokkoo ak li ñu xam ne liggéey nañ ko fi ci sëñ bi bàyyiwu ko fi woon bu ko defee ñu mën koo jàngale mu doon loo xam ne dañu xam ne sëñ bi bàyyi woon na fi ñu ñu ñu ko wuutu taxaw ñu ko taxawu ñu taxawu yoon wi loolu loolu daal mooy mooy mooy dëgg dëgg yitte ji waaw euh, bëgg nag rek ni ko sëñ bi waxee rek euh, sàkku ci seeni ñaan bu baax a baax a baax jërëjëf. mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ci njiitalu sëriñ Cheikh moom sëñ Abdou Aziz Baara ak sëñ Ousmane Mbacke moom Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma sëriñ Aboul Baraka mi ngi leen di nuyu di leen sant bu baax a baax. ci kàddu yi ngeen fi rotal muy kàddu yu ndigal di kàddu yoonu murit muy jëf joo xam ne jufi yàgg la xelam gën cee dal xolam sedd ci lool di sàkku ngeen jottali ko ab nuyoom ak ab siyaareem sëñ Ahmadul Moxtaar ñu fi nekkal Cheikh Moustapha ak njabootu Cheikh Moustapha gépp di rafetlu lool ñëwin wi ngeen ñëwee ci kër Cheikh Mamadou Fadal di ko gaaral si liggéey bi fi mu toll Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg te wér loolu yi mu def soññ na kuy ab jullit rawatina ab ab murit mën naa ne li nga xam ne si noonu la bis ba war a doxe ku dégg jëfi sëñ Muntaxa war ngaa xam ni yëf yi dana dem kon loola dafa doy sëkk ab soññe ndax sëriñ bi moom mbir mu jóge foofe ak mbirum boppam la yamale loolu da yëfi murit yëpp yëfi jullit yëpp dafay bis boo xam ne ni ko Cheikh Moustapha waxe woon ne képp ko fi fanaan set nga wicc ci bàkkaar kon booba bis ëpp naa bañ a teewe kon sëñ Seex yàgg sëñ Ousmane bu ngeen demee ngeen nuyul ko sëriñ bi te xamal ko ne ko dana ko ànd ak moom incha allah dana ko ànd ak njabootu Seex Mamadou Fadal gépp di ñaan ci barkab Seex Mamadou Fadal mi nga xam ne si moo àndoon ak Seex Moustapha liggéey bi ba Seex Moustapha bàyyee ko ko mu wéyal ko li ngeen ci bëgg yàlla ngeen ko am ci barkab sëñ tubaab mi tax ak ndigal li nga xam ne si muy ndigal lu yàgg te ngeen jàpp ci ànd ko taalibe yëpp ànd ko jullit yëpp ku ne xam ne ne fa mu nekkoo nekkatu fa ni ko sëñ Ousmane waxee rek téeméeri at duy caaxaan te ku ne xam ne ne li fi sëñ bu bàyyi woon yokku na te li yokku nag fésal ko bañ xam ne yokku na dafa def ci baax ci fànn yëpp yéen nga ca yoon yàlla na leen ci yàlla gunge ak sëriñ Touba sëñ bi mu ngi leen di ñaanal la ngeen ci sàkku yàlla ni ko yàlla defal di santit sa waajur woowee bu baax may dégg lu bari mu di ko mu di mu di ko tudd muy Cheikh sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke doonoon kenn ci moom doonoon lépp ci moom di ko sant bu baax di ko ñaanal sunu boroom yokk yërmande ci moom ci taas ñu ci barkeem mi ngi mi ngi leen di xamal ne daal yéen la fi nekkal yéen moom ngeen nekkal foofee fu ngeen toll rek mi ngi leen di bàyyi xel fu ngeen toll na ko yëg sëñ bi xolam sedd na ko yàlla nañ ci àgg ci jàmm te ñaan mbokk yëpp teewe ko te ku fa teew yàlla na yàlla fay say aajo ci barkab cheikhul Xadim jërë ngeen jëf maaleykum salaam man rafani bi ilal jinaani musnafani karamati kitabu man rafani bi ilal jinaani demam nga umpuna mindeef te um na boppam kuy mindeef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñamu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sàkk ne xéem